maa ngi tudd Pape Ousseynou Fall dëkk cité ouvrière euh, ñun dañu am lu ñuy déplorer terrain bi ñun bi ñu nekkee xale ba léegi fii la ñuy entraîner euh, jeune bi fii la moom te nature ñun fii lañ mës a nekk di entraîner di ci foo mais dañuy constater heure bu euh, jamono bi tollee fii dañuy jékki-jékki dañuy am ay problème ci terrain bi dañuy xëy gis ay nit ñëw bëgg ne dañuy tabax terrain bi ñun tooñ ñu kenn parce que fii suñu papa bu ñu fi dëkkuloon duñ fi ñëw taxaw tey woo fi presse bëgg a réclamer suñu droit ci côté bi ñun li ñu tax ñu mën woo presse parce que suñu demee ba suñu papa duñu proposé kaa ñu jox leen un million ngeen cédé terrain bi y'a problème donc ñun dañuy dañuy woo autorité ñu ñëw dimbali ñu te yàlla rek tax ñun suuf bii bu ko ñàkkee suñu doom duñu fubal ëllëg terrain raay moomuñu ko cité ouvrière moomuñu ko ñun fii lañ dëkk kon war nañ fi am fu ñu mun a loisir cité bi espace vert sax fi jardin public sax amu fi fu ñu toog noppalu sax amu fi kon ñun dañuy woote waat euh, waxuñu ci waxu ASC jeunesse cité ouvrière mooy wax ñun jeunesse cité ouvrière ñoo maa ko taxaw pour lii dañ fi parce que au minimum ñu bàyyi ñoog lii nga xam ne dañ fi mën a foowee bu nawetaan jotee équipe bi am fu mu entraîné ñun loolu la ñuy déploré du leneen loo xam ne ñu ngi ko ciy wax lu amul euh, kii quant à fii moom na ko parce que jumaa cité ouvrière fii lañ ko programmé woon d'après ci lañ ko yóbbu ci tali bi kon fii nii euh, domaine cité bi la lu ñëpp bokk la du benn nit bu moo ko moom bu ngeen xoolee cité ouvrière lu muy rëy rëy ñaari place la fi bi moom xam ne cité ouvrière yëpp a ko bokk muy école bi ak jumaa ji à part ça site bii moo fi des kon bu ñu ko bëggee jël jox ko benn nit mu bëgg ko def institut islamique ñun joxlawuñu institut islamique koñ bi am na dix internat am na ay daara alxuraan suñu doom jàngee man si ñoom père de famille dox ak yow kon am na fu ñu suñu doom fi ñuy jàngee ñu bàyyi lii jeunesse bi di ñun loo ci loolu rek la ñuy wootee di woow suñu papa yi suté bi nañ jug jàppale ñu ci lii ñuy kaas ndax xeexuñu xulawuñ te duñu yàqalalu kenn soxlawuñu yàqal kenn mais dañuy ñaanta yàlla rek tax ngeen dimbali ñu Euh, lii ñu nga xam ne mooy patrimoine surtout ouvrière moo fi des ñu bàyyi ko ñun ñu mën cee foo. Badji Mohamed je suis lanceur d'alerte habitant voilà de la cité euh, voilà ouvrière suñuy papa la ñu nag mais nag ku ñu kuy ñaan yàlla da ngay ñaan yàlla am papa bu jub on a beaucoup négocié ak ñoom depuis des années ci ñu bàyyi ñu ay espace CM bii jàkkaarloog yéen dañoo jaay genn wàll ga foyer des jeunes bi dañ ko jaay foyer des femmes dañ ko jaay. jaay nañu sax espace yu bari ci cité bi tey cité ouvrière booy def activité donc d'envergure da ngay dem loué ji feneen yaa que fii terrain bi ñu nekk nii moom moo fi des je pense que négocier nañ pendant des années ak ñoom mais déjà c'est coopérative boo xam ne bokkul ci benn union régionale il ne respecte pas le règlement intérieur parce que le règlement intérieur dit quelque euh, quelque chose très clair assemblée générale mooy jox le bureau de la coopérative mandat pour mu céder euh, un mètre carré bu mu munti doon mais tey fii ñu bëgg a tabax institut islamique donc amul benn enseignement général bu leen jox benn mandat bu mu mënti doon ne leen da ngeen fi tabax nangam sangam ASC bi nag depuis 2007 la juddu ñoo nettoyé terrain bi ñoo fi génne lépp luy balit parce que fii ancien dépotoir euh, euh, de sauvage d'ordure la woon te yaakaar naa ni xale yooyu ba ñuy nettoyé fii kenn fekk leen ci bu ñu demee ba fii rafet ba jekk ay mag nag dem xaw ma dañ koo jaay xaw ma dañ koo abale bëgg fi tabax jàkka wala jumaa am na fi ba pare yaakaar naa ni xale yi nga xam ne tey ASC yaakaar lañu xale yi nga xam ne tey ñooy euh, xale yi jàngee ci CM bi seeni maam bu ñu leen yërëmul ñoom xale yi duñu leen yërëm donc préfet yëg na li xew la sous préfet yëg na li xew yaakaar naa ni li leen war dinañ ko def parce que yaa a de cela deux ans liñ fi amoon mooy xale yi dañoo fàqal yet maçon yi dañoo fàqal yet paa jël birig yi toj kon préfet bu amee fulla ci dëkk bi le sous préfet am fulla ci dëkk bi boobu dadul sa teg benn brique ñun daal dañuy alerter parce que xale yi duñu bàyyi mukk kenn di fi tabax seen bakkan lañ ci gar parce que du ñu nangu ñu jaay foyer des jeunes foyer des femmes jaay espace public yëpp jaay lépp terrain bi des it ASC bi mooy mooy yaakaaram mooy tax ku entraîneur mënoo football ASC bi tey mooy porte étendard du site bi c'est vrai bu ñu ko xamee ASC yaakaar moo xam nga ci tubaab dañu naan cédé ñoom dans leur papier euh, dañu naan coopérative des chemins de xam lan moo cédé nangam mais cédé na ko ñuy comprendre jaay parce que ci euh, terme immobilier amul cédé amul vente cédé la ñuy def cédé peine wala voilà cession de peine la wax su ñu nee jaay mais euh, coopérative bi dañu dafa deful euh, amuñu amuñu kees bu ñu mën a tabaxee lii kii tabax lan lañ koy fayee mooy yaa ko tabax yaa koy gérer dañ lay def genre bail c'est ça c'est la même chose noonu def ci marché bi si vrai tey amul kuy dëkk fii muy ASC bi muy groupement des femmes bu am benn cantine ci marché bi c'est plus de deux cent cantines maanaam groupement de femmes yi fi nekk association yi fi nekk amul kenn ku ci jox benn cantine ne lii sa revenu la donc loolu lañ def ci marché ba marché Sud-Ouest mënut a décoller tey le ñu jàkkaarloo CM bi tey daanaka jaay nañ génn wàll gi donc tey eh, le code foncier li mu wax lu leer la 70 pour cent d' habitation 30 pour cent espace d' utilité publique. ñu ñu ñu ñu ñu sekkal ñoom dañ fay dëkk coopérative bi fii la ñu dëkk ka ñu jox muy tabax fii la dëkk am na fi kër. tabax bi kon commencé na. suuf saa ngi noonu béton gaa ngi noonu fer donc dañuy bañ li fi xewoon euh, deux ans mooy. ñuy ñuy ñuy ñuy tabax booyee di yàq ba police di ci am. ñu maintenant li ma wax rek préfet yëg na ko wax na li muy wax la sous préfet yaakaar naa ne ay am nañu ful ak fayda balaa ñuy àgg ci rayante ASC bi moom mënta dem bàyyil kenn ay bi si koñ bi la bokk ay bi mooy porte étendardu koñ bi su ma nee ASC bi jeunesse koñ beeg les enfants yi jàngee ci CM bi ñëpp mag ñi sax bu ñu julee fajar fii la ñuy donc du ñu nangu ñu koy clôturer du ñu nangu ñu koy jox kii que ce soit fii y cité bi ay daara kese la donc soxlawuñ loolu am nañ fi jàq am nañ fi juma am nañ fi lu ne donc tey cette prédation foncière dañoo bëgg que wala génération bi fi nekk muy génération Bassirou Diomaye Faye régler ko Thiès vraiment les gens ont souffert et cette cité cheminote a souffert amuñu fu ñu doxantoo amuñu benn espace amuñu benn espace récréatif et c'est c'est c'est bien dommage xale yi dama leen di sant parce que dañu d'accord ak man def point de presse mais ku fi toj brique dañ koy toj loolu la ñu waxoon mais ñu dal calme ba lii amul kon dañ ciy sant yàlla le préfet ñu ngi koy ñaan mu def liggéeyam le sous préfet la même chose bu ko defee jàmm ne ñooy mais lii bu continuer dañu def plainte nag yóbbul ko procureur contre nag ñi nga xam ne ñoo yor coopérative bi def lu leen neex parce que nag suñuy papa la ñu nag mais nag wax dëgg fa nit boo doxalul yoon dañuy dem ci yoon yoon teg la ci yoon l'autorisation vient de la mairie nord bizarrement Babacar fii ñu nekk ni la commune est la bokk fii ñu nekk nii est la bokk le tableau qui en vert vous allez voir l'autorisation vient de la la commencé fi nga nekk est la bokk mairie est moo la jox autorisation commune nord joxe autorisation de construire donc ñu njaaj dafa am ci loolu loolu jamonoy Lamine Diallo la ngeen ma ko baal nag jamonoy Lamine Diallo la malheureusement xamuñu lu xew donc déjà rek administrativement duñu def erreur fii est la bokk nga wut commune nga wut autorisation commune nord fa nga daanoo loolu kay leer na kon kay na préfet sous préfet def seen seen seen rôle mu jeex avant que bal di fi tàkk moi je fais que lancer et je xale yi du ñu seetaan mukk ñu fi tabax quoi que ce soit et ñu leen remercier yéen presse